dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i ñu xëyantoo yéen i kaay gi di réew mi ko di jenqëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi ni ci talaata ji la ñu bëgg amal rassemblement waaye tamit àllarba ji nga xam ne moom la ñu dëgmal fukki fan ak juróom ci weeru mars bëgg nañoo amal ay mars si ñeen fukk ak juróom benn département yi nga xam ne moo nekk ci biir réew mi loolee nga xam ne moom la Yewwi Askan Wi di waajal tax na ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom tim daan nañu yëngoo ndax nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ak pëccëxoo la ñu bëgg andi ci réew mi maanaam dugal Sénégal ci musiba goo xam ne mara détail te nag loolee loolee waruñu leen cee bàyyi ndax ñi nga xam na ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi lii nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg dañu ko planifié bëgg a dugal Sénégal ci kaw bëgg ko yóbbu ci ab guerre civile la yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na lu jëm ci wàllum guerre civile boobee nga xam ne waa APR ñoo ngi koy wax fan yi ñu génn Alioune Tine tamit déggoon nañ mu am ci nga xam na ñooy waa APR nee nañu ingrédients yëpp jamono ji taxaw na ngir Sénégal dugg ci musiba goo xam ne dina ci bëgg a génn mu tëkkoo yéene kaay gi di enquête nee na li nga xam ne moom la ñu dugg semaine la boo xam ne nar tàng jër maanaam semaine de tension noonu la ko journal bi tuddee ndax ñi xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi bëgg nañoo amal rassemblement waaye tamit bëgg nañoo amal ay doxu ñaxtu ci biir Sénégal gi yëpp boo yokkee procès bi xam ne moo war a doxo diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci lu jëm ci 29 milliards yu Prodac yi boobee fukki fan la ak benn ci weeru mars bi ñu dëgmal yéenekaay gi de Le Quotidien nee na waa APR ñoom nee ñu mobiliser Ndeye Diop moom daat nay wax ne tension politique bi nga ne moo am ci réew mi Macky Sall moo ko fi andi ndax lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature am bi moo tax tension politique bi am ci réew mi yéen kay gi de Le Quotidien yor yora ñu xëy fekk fa Abbas Fall bu Pastef fa honorable député daat nay wax ne Macky Sall jamono ji dafa ragal Ousmane Sonko ba maara détail yi mën a la ragal ne moom la Macky Sall na dayoo ji dafa am boo xam Abbas Fall nee na Ousmane Sonko du may Macky Sall dara te du bàyyi Macky Sall di ko rendi œil pour œil dent pour dent danañu jàkkaarloo ak Macky Sall defante ak moom ba mu xam ne moomul réew mi ba pare tamit Macky dinañu ko wax na ko Macky Sall doo ab buura ndax doon na wóor réew mi te nag danañu jàmmarloo ak Macky Sall loole nag askanu Sénégal gi yëpp ñoo koy def ñi nga xam ne ñuy waa Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall ñoom amuñu benn yéene wala benn taxawaaye ngir nag leeral tooxi doona yekk njombe yi nga xam ne jamono ji moo am ci réew gi de fekk fa may nee na Macky Sall duñu ko seetaan dara maanaam muy liquider ay adversaire yéene kaay gi du source a xëy di ñu xibaar naan ñu fan yi ñu génn doon ngeen dégg plateforme bi nga xam ne teg nañu ko ngir na xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall te ñi nga xam ne ñuy waa PDS wax ne ñoom duñu ci bokk tant que Aminata Touré ma nga fa waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ne nañu ca plateforme boobee la ñu bokk ndax waa Yewwi Askan ñoom dañoo jàpp ne PDS yi caaxaan ki tappale ci ñu nekk ndax lii nga xam ne moom la ñuy wax Aminata Touré waxi kasaw kasaw la wax ju tegewul fenn la ndax ñu dénk wàllum yoona jamono jamono joojee Abdoul Mbaye moo nekkoon premier na groupe parlementaire bu PDS boobu na leen ay fenkat ngeen ay kàcc nekk te mus ñoo dañ di waxtaan ak Macky Sall di négocier ak moom yéene kaay gi de Le Quotidien yor yor Abbas Fall nee ñii nga xam ne ñoo fi nekk naan Macky xawma dina gagner élection présidentielle dem sa sax def te nag askanu Sénégal jamono ji ñoo ngi koy xaar bis bu waxee ne candidat la dina way mbay Abbas Fall nee am na loo xam ne Macky Sall moo ko tey ndax bëggul xale yi bindu ci liste électorale yi ndax xam na ne xale yi jamono ji ànduñu ak moom Alioune Tine ci biir journal bi nee na opposé léegi dafa mel ne crime la ci Sénégal mel ni dañu ko criminalisé yéen kaay gii di leen foo xëy xibaar naan ñu lu jëm ci procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ismaïla Madior Fall mi ñu mel ni tëj na Ousmane Sonko te àtte bi yegseegul yéen kaay gii bëggul ku ko amnistie jamono ji li soxla mooy ku ko àttewaat ñoom waa PDS nee nañu ñoo ngi waajal élection présidentielle 2024 yéen a kaay gi di Sud ak bés bi Ismaïla Madior Fall nee lu jëm ci wàllum projet amnistie bi nga xam ne moom la fi doon wax jamono ji ma loxol Macky Sall journal bi di Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na Macky Sall fexe na ba indi ay jeexi jaaxa ci xelu sénégalais yi ba dina bokk wala du bokk waaye nag Karim ak Sonko di lijjanti nan la ñuy bokkee jamono jooje moom lëndëmal na xel yi ba xam moom dina bokk wala du bokk ba pare teg si di politique jamono ji moom Macky Sall yéene kaay gi di réew mi quotidien ay miir yu ñing nee na élection présidentielle 2024 ñoom Benno Bokk Yaakaar benn candidat la am yéene kaay gi di direct news xëy di xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany ak 98 yi nga xam ne ma ngi koy wax am na loo xam ne jar nañu leeralal ko Bougane Gueye a xam ne depuis 1960 ba Sénégal di Sénégal am indépendance ba sunu yàlla jonne tey ji pré projet yi dañu koy losé ay ay compte bancaire te nag ay clause la yoo xam ne yàgg na fii 98 milliards yi nga xam ne bugaan moo ngi koy wax est ce que xam na ne maanaam waxtaane nañu ko ci commission technique bu assemblée nationale ba fa Mansour Faye jaaree lu may loolee tamit bi ñu dénk wàllum du moom mooy signé fonds yi nga xam ne mooy bàyyi ko FMI wala banque mondiale bugaan gi dani dañu koo dugal ci erreur wala dafa juum ci loo xam ne tëyu ko journal bi mooy xeexoo dox seen diggante am ci kenn koo xam ne dañu ko wéq ci dox gi mu daanu ci ndox mi ndox mi yóbbu ko ñàkk na bakkanam ki nga xam ne moo ko wéq di capitaine bi dafa waxoon ñi nekk ci biir gaal gi na leen noppi le bu leen ma boole waaye kenn si ñoom dem na nettali lépp waa sa police teg nañu ko loxo kooku ñu wéqoon ba mu dugg ci ndox mi ñàkk na bakkanam gis nañu koor bi yéen kaay gi di sunu làmb xëy diñu xibaar naa ñu rëg-rëg ginnaaw jël bu njëkk bi nga xam ne am na ko dàqul benn yoon bëre ak Boy Niang waaye nee du bëre ak Eumeu Sène